tey nag dama leen indil sept artistes yi nga xam ne nii seen ay jamono marqué woon nañ seen empreinte bu baax a baax baax ñoom nag téye woon nañ Sénégal mais malheureusement pour ñenn ñi dañoo xaw am benn retard ak benn empêchement seen carrière ku ci mel ni ami Meng moom nag jamono ñoom Viviane la woon jamono ju muy xew téye woon na Sénégal bu baax a baax a baax moom Amy Meng génn woon na fi ay album yu bëri ay titre moo fi wayoon sax lu mel nii ci topp di Assane yi yéen ñëpp yéen doon fàttaliku son boobu di càppali bonbon mu nekkoon benn son bu nag bu xewoon lool mën naa wax bu doon jamono jii la mooy nekk nag tendance numéro un ci YouTube beeg ak ñoom TikTok waaye Assane Gaye ñu jékki-jékki kenn gisatu ko moom Assane Gaye nag moo fi waxoon lii Lamine Signane Lamine Signane nag neexoon baat lool dem bañ koy méngale ak kii di Thione Seck moo fa woyoon Gorée moo fa woyoon lii nga xamante ni nag mooy batalo Joola waaye kenn déggatu ko moom Lamine ñaan lii la fi woyoon Alsane Fall yéen a ngi fàttaliku Alsane Fall moo fi doon featuring ak ki nga xam mooy Viviane Chidid Ndour ci benn single bi tuddoon dafa la nopp mu nekkoon benn single bi Sénégal yëpp bëggoon mais malheureusement Alsane Fall carrière am mujj gi kenn déggatu ko foofu nag moo jaaxaloon Sénégalais ci topp nag di Abdou Rass ku ne xam ne jamono yi mystique Abdou Rass nag moo téye woon Sénégal bu baax a baax a baax boobu nag mi ngi woon ci label bi doon Jololi ak benn albumam bu neexoon lool moosu gars yi gënoon bëgg nag moo nekkoon Trahir Abdou Rass nag malheureusement que nag mun na woy trop mais finalement mujj jigi kenn déggatu ko woon xaw ma ci lu mu nekk. ki ci topp di Khady mbay Khady mbay nag xamoon ngeen ko bu baax a baax mu nekkoon benn kat bu dëkkoon Tiwaawoon mënoon way trop baatoom neexoon loolu Sénégal yëpp joxoon ko bopp mais ñu dem jamono dem kenn déggatul Khady mbay bay nii may wax a geen kenn xamul ci Khady Mbaye nekkoon moom nag moo fi woyoon lii nii indil nag Yacine Mboup la moom nag tax koo yàgg noonu waaye Yacine Mboup dafa génnoon benn single bu neexoon lool muy série maa tey nopp la tey nag Sénégal di ko topp waaye jamono ji may wax ak a raar ci lii di musique sénégalaise gaa ji laaj Yacine fan la nekk moom moo fi woyoon lii nag li la leen indiloon ba beneen chronique incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam